ki nga xam ne moo ñu bëgg a defal waxtaan wi leeral ñu ko nag mooy Serigne Bassirou fay nekk professeur di jàngalekat di yarkat waaye nekk it koo xam ne nii ci jumaa ju mag jee ci Masalikul Jinaan bokk na ci ñi fay leeral tomb yu mel nii di ko leeral jullit ñëpp ba mën a leer ci ñoom naa bu noppee Serigne Abdou Lahad Bousso dana ci def ab ab euh, te ab tënk rek waaye kon ginnaaw waxtu wi dafa gàtt it loolu it waxtaan wi xam naa ne nañ ko waajale woon mën naa am eh, dana gën a gàtt noonu ndax të sàmmonteeg waxtu wi kon ñu dugg ci rek jox sëriñ Basiru eh, mu dugg ci waxtaan wi ñu ànd ci ak teewlu ak déglu jërëjëf bisimilah bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di nuyu ak a sant sunu wasila sunu sëriñ cheikh mouhamadul mourtada ibnu sëriñ saalihu mbàkke moom mi nga xam ne moom lañu àndal jotaay bi ak màggalu sëriñ tuubaa gi mu digle woon ñu ko ci santale sunu boroom di ñaan yàlla sunu boroom yàlla kàttanal ko dëgëral ko ba mbooleem yéeneem yeeg naalam yi mu mën ko yeggale ni mu ko bëggee ànd ko mbokki taalibe yépp ginnaaw waxtu wi dafa xat ñu ñëw rekk ci tomb bi ñu bëggoon a waxtaane mooy solos bennoo ci biir lislaam waaye dañ koy jàng ci doxalinu Sëriñ Tuuba nim ñu jàngale wàllu bennoo li ñuy njëkk a wax mooy doomu aadama yàlla sunu boroom mi ko bind rek moo ko xam moo ko bind moo def ci moom li ñuy tudde ak wuute moo def ci moom ak wuute day mel ni ci dogal yi la ñoom ñëpp duñu ànd bokk fu ñu jëm faaw ñi dañuy jëm ni ñu ci des jëm na le loolu dogalu sunu boroom la dàqontewul ak tam yàlla subhaanahu wa taala digal ñu ne nañ bennoo ndax yàlla boo xoolee ci wowu doxalin lépp lum la digal ne la na nga ko def man ngee nekk day am waaye mu boole laag ay xeetu natt yoo xam ne mën nañ laa gàllankoor ba loola doo ko mën a taxawe bu ko defee kon foofu yàlla fa lay xoolee nattu fa doomu aadama yi ñan ñoo gën a mën a topp ndigal ak ñan ñoo ñan toppul ndigal mu ñëw ci alxuraan yi tegtal yu bari boo xam ne day firine kenn ku ci nekk fu mu far rek foofa ñooy yor dëgg li ci ëpp ci moom yàlla deful ci xol yu bari ñu mën a gis dëgg ci seen bopp gis ko ci keneen ku dul ñoom kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun loolu nag lu mu indi mooy ak wuute gu metti ak néew doole ak tam dugg ci mbir te duñ ko mën a sottal ci biir jullit ñi moo tax sunu borom daf ñoo tele ne nañu moytu xëccoo nañu moytu wuute ndax buñ ko defee sunu doolee day néew duñu am kàttan lu ñu song duñ ko mën a daan mu waxaat ci alxuraan moom yàlla ne na ngeen takkoo yéen ñépp ngeen jàpp ci buumuk yàlla gi te bu leen tàqalikoo benn yoon ndax ñi nga xam ne dama leen ko digaloon defuñu ko wuute ci seen biir tuuti ñu alku yàlla moo ci du def loxoom dimbali leen waaye tuuti ñu alku kon loolu li muy firi mooy sunu boroom dafa namm daa bëgg mboolem jullit ñi ñu nekk benn donte naanuwaay yi dafa wuute fu ñu mën a soqali ko ñu xam ne ñoo bokk luñ liñ bokk lépp mënuñu ko seddoo te moo ëpp doole ci li ci li ñuy dunde ah, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tam feelu na ci alquran lu bare bari ci ay xadiis yoo xam ne day digle ak bennoo am na buñ ci mën a tudd mooy fi yonente bi waxee ne jullit ñi day dama leen di misaal ci ne niñ war a soppantee war koo yërëmantee war koo ñeewantee seen bopp ci seen biir day mel ni aw yaram woo xam ne wenn yaram rek la cër bu ci metti rek cër yi ci des yépp daal di koy yëg yaram lu ci metti rek nit ki day daal di am jafe-jafe donte yeneen cër yi mettiwul waaye benn cër bi metti day yóbbaale yi ci des ay jullit noonu lañu war a mel ci seen biir loolu yonent bi daf ñu ko jàngal ngir ñu jàppe ko noonu mu dellu waxaat ñu ne li ñuy tudde ak ngëm du sotti gëm du sotti mukk-mukk lu dul jullit bi dafa bëggal mbokkam li nga xam ne moom la bëggal boppam kon yooyu ay njàngale la yoo xam ne ci sunna la yonent bi daal ñu koy jàngal mu waxaat ne tam képp koo xam ne yitte jullit ñi du sa du sa yitte lu ñuy def sa yoon newu ca faale leen toppatoo woo leen nee na boo nee jullit laa tam yow yaa ko tudde sa bopp waaye bokkoo ci ñoom kon jullit day faale moroom ma da koy bëgg lépp lu yéene boppam yéene ko moroom mi lépp lu gis ne jàmman ca mu mu yéene cee dugal meneen moroomu jullitam loolu mooy jikkoy jullit kon li nga xam ne moo yàq lu bari mooy ak wuute mooy yàq lu baree bari wuute gisin te arab yi dañuy wax masal bu am sole dañ ne al ixtilaaf fi ra'yi laa yafsudu lil wuddi qadiya maanaam wuute warta mën a andi ak yàqoo ci seen biir warta mën a andi ngeen ñàkk déggoo ci menn mbir kenn ku ci nekk mën naa wuuteek moroomam ci bëgg lenn mbir jaare ko nële ki ci des jaare ko nële te du tere bu e-, bu ëllëgee ñoo ñëpp ñu tase ca tomb booba nga xam ne moom la ñuy wërte mooy dëgg kon ñu xam ne lislaam daal tere na li ñuy tuddee ak racisme wala li ñuy tuddee euh, maanaam sama bopp rek lislaam bëgg ko da koy tere lislaam li mu woote mooy ak soppante li mu woote mooy booy woon nit koo xam ne sax bokk leen fu ngeen féete nga woo ko ci bil xikmati wal mawidati al xasana nga woo ko ci xereñ ak waar ko waar gu rafet goo xam ne tam la koy woo du ko bañ du ko foñ ndeke noonu lislaam foo ko fekk day woote jàmm di woote sécurité di woote stabilité loolu mooy mbirum lislaam loolu lépp nag kenn mënu koo am te dugaloo ko ci biir li ñu tuddee ak bennoo Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne nag ci moom la ñuy balluloo lenn lu ci nekk ci jafe-jafe yi ñu am indi na ci ay tontu yu wóor yoo xam ne buñ ci jàppee danañ mën a egg fañ jëm te duñu am benn gàllankoor ñu daal dajale mbooleem xeeti jafe-jafe yi li ci ëpp ñu xool ñenn ñi seen jafe-jafe mi ngi ci mazhab ci ngir ñu neen masalam man ngirum Malik laa bokk keene Shafii laa bokk keene Hanbali laa bokk ci biir jullit ñi loolu gis nañ ne jafe-jafe la am na ñoo xam ne seen jafe-jafe mi ngi ci wàllum taifa man murit la wala man tiijaan la wala man xaadir la am na ñoo xam ne seen jafe-jafe mi ngi ci wàllu waaso waaye bu ci nekk rek dangay xool sëriñ bi ni mu ko toppatoowee ni mu ko traité defar ko ba nga xam ne nit ñi bu ñu yeewoo ba xool ko dootuñu mën a am benn njuumte maanaam ngànt dootul am ci wet googu lenn lu ci nekk danañ ci indi dara ci li ci sëñ Touba wax ngir firndeel ko bu fekkee ne ñi nga xam ne ci wàllu ngir lañuy xëccoo fii laa bokk ci Malik laa bokk wala Shafii dañoo gis ne Serigne Touba moom muhaafis la woon waaye mu mujaddid la woon muhaafis mooy koo xam ne dafa fondamental ci wàllu ngëm-ngëm maanaam ngëm gu dëgër ak doxalin wu dëgër bu ànd ak rigueur dëgg-dëgg moom la boo jàngee taarixu sëñ bi ci wàllu lislaam loolu ngay daj waaye mu mujaddid la woon maanaam ci ñi yàlla jox cëru yeesal diine ci la bokk loolu lépp mu boole ko daal di wax ne diinun siwaa islaamihi la yuhmat inda al ilaahi wa bihi nu jaddidu moom diine ju islaam sunu boroom gërëmu ko waaye man diine jooju nag moom laa ñëw ngir joyanti si ndax lii ñu tudde ak tàqalikoo diine da koy bañ kon ki nga xam ne moo am mission taj diidu diin yeesalaat diine kon yooyu faaw da ciy indi ay tontu te indi na ci ay tontu tontu la dañ cee jël lenn rek nga xam ne day symboliser mbooleem loolu fi bi waxee ne falaa tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah bu leen noonoo mukk ku ngeen gis gémmiñam kalimatu laa ilaha illa allah di ci génne yaakaar naa ne dimension boobu bu sori la boo xam ne boo doon wër alam islami monde islamique di wër téere yi di wër lépp bala nga ko daj faw da ngay dem ci waxi yonente bi sallallahu alayhi wa Serigne Touba ci jamono yu mujj yi ci vingtième siècle dix-neuf dix-neuvième vingtième siècle mu jàngalaat ni ñi ne képp ku ngeen gis muy tudd yàlla nangu ne yàlla kenn la yonente bi sallallahu alayhi ndawam la moo ko yónni ci moom kooku bu leen ko def noon def leen ko mbokk bu waxee bu leen ko def noon mooy def leen ko mbokk fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah mu waxaat ne eh, ci bunt boobu ba tey aimati ci buntu fiq xam nga ñenn ñi seen euh, euh, racisme wala seen euh, bëgg seen bopp ci fi ñuy jaamoo yàlla la jëm buñ gis buñ nekkee ci Malik mën nañoo jàppante nekk ci Abu Hanifa buñ nekkee ci Abu Hanifa mën nañoo jàppante nekk ci Shafii buñ nekkee Shafii mën nañoo jàppante ku nekk ci Ahmad ibn Hanbal yooyu nag sëriñ bi bi mu koy saafara dane aimati fil fiqhi ñi nga xam ne ñooy samay eh, delluwaay ci fiq maalikil ali di xëccu ne moom rek moo yor mbir mi sëriñ bi boole leen ne ñoom ñëpp samay delluwaay lañ ci wàllu fiq waaye nag ah, ñun ñi nga xam ne ay eh, ferel eh, ay taalube lañ di sàkku sëriñ bi ba mu waxee loolu ba noppi dafa digal nag ñi nga xam ne ñoo ko topp ne leen nag yéen bu ngeen di jaamu yàlla ci wàllu fiq mën ngeen a roy ci imam malik na mu ko bindee woon aleykum bil malikiyati fa innaha mutaharatun munawwara mën ngeen a dellu ci imaam Malik jël fa seen fiq ndax mazhabam leer na laab na euh, ànd na naag nuuraaniya dégg nga goo xam ne mën ngeen faa jël li ngeen di jaamu waaye ña des nag néewul kenn lenn waaye kenn ku ci nekk fa nga bokk nangu na ko jàpp na ko ànd na ko ak yow loolu kon gis nga ni ko sëñ bi saafara kon bennoo jullit mi foofu niñ ko mën a jëlee ci moom am na geneen xeet boo xam ne wàllu taaifa mooy mbooloo yi nga xam ne ay mbooloom tasawuf ku nekk bokk nañ fiq ba noppi waaye ki defaat ay kuréel kenn ku ci nekk am fu mu màcc ñu ne sëñ bitam loolu ba mu cay indi ay ay ay leeral dafa jàpp ne rek mbooleem kuréel yooyu ay méthodologie la yoo nga xam ne ay méthodologie éducative maanaam ay yar a ko tax a jóg ay manahij tarbawiya lañ koy wax kenn ku ci nekk dafay yar ab mbooloo euh, sellal xolam ak xelam ak bakkanam ba nga xam ne nii dana set wecc si ruuxaaniyaam digganteem ak boroomam te ku ko gis tam ci wàllu jaamu yàlla du ko du ko xeeb yooyu sëñ bi daanaka da cee indi loo xam ne e, daj na kàpp mbir yëpp mooy bi muy wax naan fa kullu wirdin yuridul murida li xadaratillahi walan yahida bépp wird boo xam ne gis nga murid bi di ko wird murid mooy ku namm yàlla tere tasawuf yu njëkk yi dañ daan wax murid mooy koo xam ne rek dafa namm sunu boroom moo xam fu mën a bokk ci këru diina yooyu wala néegi diine yi ndax yàlla rekk moo tax muy def kookee sawaun intama ilal jilaani aw intama li ahmad at moo xam abdul xaadir jilaani mooy sëriñam wala cheikh ahmad tijaani mooy sëriñam aw li siwahuma min al aqtaab wala keneen ci góor yàlla yi mooy sëriñam ah, fu mu ci bokk rek baax na is kulluhum eh, xataan ala sawaab ndax ñoom ñëpp ci ak njub lañ nekk gu leer fa kulluhum yad'u al-muridina ila taa'ati rabbil arshi haysu haysuma eh, eh, eh, haysuma jara ndax ñoom ñoom ñëpp day dañuy dañuy yar murid yi rek dégg nga di leen toppaloo yàlla sunu boroom koo ci gis rek jàppal ne loolu moo nekk ci moom ñoom ñëpp dañoo daje di yar mbooloo mi ci istiqaama moo tax koo ci gis bu ko xas bu ko reetaan bu ko xeeb bul jàpp ne tam yaa ko gën waaye yow maandul rek te li li nga xam ne moo la doy nga nekk ci e, te sa digganteeg sa borom ki ci des nga rafet njortu ci moom te bu ko xeeb ah bu ko defee sëriñ bi ci buntu tasawuf da ngay gis ba mu jógee di sóobu yoonu tasawuf wi e, xam nga mënoon na ne rek maa koy doon waaye waxu ko boo xoolee ci bidaayatu suluk dane fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa xawliya kay laa yadia umri ataaba li xusne zannin xaada lixtisaaba maanaam économie de temps la doon def bi ma jógee bëgg a ràmmu nit ñi eh, dimbali leen seen ak seen borom mbooleem ñi fiy wax borom xam-xam ak awliyaullaahi yi ku ci nekk dem naa fa ziyaare ko ñiy dund ñi dundul ma dem ci seen i bàmmeel ziyaare fa def fa madat nee na li ma ci jublu rek bañ a sànq sama dund ci ay coono ah jàpp ne xëy na li ma bëgg a def ñooñee danañ ko man waaye nag ginnaaw bi la jël engagement boo xam ne digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci eh, xidma ak jaamu yàlla ci ah, ah, abdullahi wa xadimu rasulihi daal di jël risaala boobu daal di koy doxalal boppam waaye musta indi benn eh, jafe-jafe ci ci ne eh, man maa fi nekk ñi ci des nekkuñu fi waaye dafa dox yoonam li nga xam ne moom la ko sunu boroom jox ci ay tedd nga ak ak ak ak teraanga ak mën koo dimbalee nit ñi mu leeral leen ko waaye musta wàññi kenn lenn mashaayix yi seydina al jilaani wa shazali maahu tijaani ba ci tasawuf sax ñoo ñëpp mu leen di woowe ay sëriñ donte sax mbirum sëriñ bi lenn lu ci nekk ak jamonoom am na jamono yi nga xam ne bi muy wax ay mashaayix bokkut ak jamono yu mujj yi nga xam ne xëy na dafa dem ci géej gi ba ñëw waaye mbind yooyee moo fi nekk ñu koy jàng ba léegi te ba mu ñëwaatee tam ci yoon wu mujj wi neewut mbind yooyee far na neewut mbind yooyee far na am na fu muy wax ci xas yi de luy nuri ne yàlla nangu na sama mbind yu mujj yi waaye mujjantal gi tam dane yàlla nangu na lépp rek yàlla nangu na lépp a ah, kon nag euh, noonu la euh, mbooleem euh, sëriñ bi noonu la doon doxale mbooleem ñi nga xam ne tam dañoo bokkoon ci yeneen kër yi ay relation yu rafet rafet la amoon ak ñoom ku mel ni mën nañ cee tudd rek ñi nga xam ne xëy na ñooy jiil bi nga xam ne ñoo ko jiitu ba bokk ak sëñ Mamoor Anta Sali ku mel ni sëñ Xaadima Jaxate Kale Kala ku mel ni sëñ Mouhamad Sall ñi nga xam ne ñoo jamonanteel moom bari nañ mën nañ cee tudd ku mel ni Alxaaji Daraame ku mel ni Sidi Xuuya ku mel ni Alxaaji Malick Si ku mel ni Alxaaji Moussa Camara ca Ndar ñooñ ñëpp kenn ku ci nekk ay relation yu am solo la amante woon ak moom nga xam ne ci biir njullite ak bennoo jullit rek la ko doon defee kon foofu kon sëriñ bi tam ci wàllum euh, taaifa euh, mbooloom tasawuf yi indi na ci lu leer luy wane ne bennoo gi daa war a mën a nekk bu fekkee ci wàllum social nga xam ne dañuy dëkk yi ku nekk rek am na lu ñuy tuddee ay couche sociale kooku tam sëñ bi ba mu koy wax dafa ñëw ndax fekk na fi lu ñuy tuddee benn complexe d'infériorité maanaam nit ñi ñuul ñi sax gëmatuñ woon seen bopp ndax boobu ni fi tubaab bi mel ak ni mu incarné mbir yi ba nit ñi defee ne sax tubaab bi rek moo war a am xam-xam moo war a euh, lépp lu baax moo ko war a moom ba loolu sax feeñ na ci le ci lenn ci baat yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci lu baax rek ñu daal koy askanale ñu euh, ñu askanale leen ko waaye sëriñ bi ba mu ñëwee dafa wax ñaari mbir ci loolu benn bi da cee révolutionné wàllu xel bi ci des da cee révolutionné wàllu ruux ci boppam bu njëkk bi dafa wax ne fa laysa yujibu sawaadul jismi safaahatal fata wa suu al fahm maanaam yaram wu ñuul firiwul ne nit ki dafa dese firiwul ne dafa mënta comprendre dara kooku kon sëñ bi dafa interpeller directement wàllu xel kon xel nit bu ñuulee itam war naa mën a am xel fépp fu xel di egg war na faa mën a egg kon nekkul ne ñu weex ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ba ñenn ñi defe na ñoom rek ñoo am xel sëriñ bi dindi loolu maanaam kon su commencé foofu ba dugg ci sunu biir dëkk bi tam bu kenn jàpp ne ak foo mën a bokk yow rek yaa am xel ñi ci des amuñu xel kon jàppal ne ñépp la yàlla may xel mel benn xalaatkat da doon wax ne al aqlu mooy aadalu al ashyaai xismatan bayn an naas yàlla daa mel ni boo doon xool fu mu gën a maandu sax ci xel la kenn ku ci nekk may na la ci cër ñenn ñi nag dañ koo màggal ñenn ñi dese koo fonk bu ko defee ñi ko màggal yàlla di leen ko won saa su ñi nga xam ne fonk ñu ko saa su nekk ñuy gis ñi ko fonk liñ liñ leen di rawee bi ci des nga xam ne wàllu ruux la nga xam ne xëy na ñu bari dañoo defe ne woon faw da ngay weex ngir mën a egg fenn sa diggante ak sa boroom loolu tamit benn xeetu complexe la woon waaye sëñ bi bi mu koy fajtal dafa wax ne fa sa yujibu sawaadul jismi adamu fawdin bi adimi xis maanaam ñuul firiwul ne doo am ay daraja yu kawe fa yàlla ñuul firiwul ne doo am ay daraja yu kawe fa yàlla kon yooyu yëpp da ngay gis ne kon ba léegi day yeete ci li ñuy tudde bennoo day yeete ci li ñuy tudde bennoo ñu gis na tam sëriñ bi euh, Seexul Xadiim dafa euh, euh, soññi lool ci mabdaul musaawa maanaam principe bu bennoo da waaye nag lislaam a ko ñu ko woote da ko yeesal principe bu ëpplante diw sàngam kee ko sut du moroomam ndax fii la bokk waaye lislaam moom ba mu waxee dana woon ki gën a ragal yàlla moo gën sëriñ bi tam ba mu ñëwee loolu la indiwaat dafa wax ne samaratul ilmi wal amal wal axlaaq rek maanaam ëpplante mi ngi ci xam-xam ak jëfe li nga xam ak jikko ju rafet ku la ko ëppale rek moo la ëppale ci lislaam xam-xam ak jëfe li nga xam ak jikko ju rafet mu wax ne waalam bi annama tafawuta alwara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man xat fadula la bintisaabihi liman xaditala ëppalante dëgg-dëgg mooy ci ki nga xam ne am na xam-xam ak diine foofu la nit ki war a ëppalante waaye warta ëpplante ci fii laa bokk ak fee laa bokk ndax loolu tam dafa gàtt lool moo tax mu daat ci teg ne min jihatil ansaabi ummin wa ab bul tiitaroo sa waajur wu jigéen bul tiitaroo sa waajur wu góor fa fiihima ijtahid mata maa ta'addub na nga góor góorlu ci ñaar yama la waxoon mooy xam-xam ak jëfe li nga xam nee na boo ci góor góorloo boole kook ay teggin te teggin mooy jikko ci ngay rawe sa moroom beneen bi nga xam ne poñ bu am solo la ci li nga xam ne mën naa def bennoo mooy yéene aw yiw mboole seen yéene nit ñi aw yiw ndax saa yoo xamee ne sa bopp nga gën a fonk yéene woo ñi ci des li nga yéene sa bopp loolu jafe-jafe la boo xam ne feek ñu ngi koy dund bennoo du mën a am waaye kooku it sëriñ bi da cee indi ay tontu yu wóor mooy mën nañ cee tudd yenn nga xam ne nit ñu bari ni ngi koy jàng xëy na min nañ ko yaa malikal mulk yaa man jalla an xawadin irham jami al wara ya haadi radaa koo xam ne da ngay laaj yàlla sunu boroom ne ko nanga nga ma yërëmal mbooleem mbindeef yi kon kooku li bëggal mbindeef yi ak li mu bëggal bokkam kiif kiif ñoo yem dara ëppul sa moroom mu waxaat ne wal takfi nii aza jami al alamin wal takfihim azaya yaa rabbi amin na nga nang ma fegal loru doomu aadama yi waaye fegal leen ma it samay lor kooku xam nga ne kuy wax loolu yow ni nga jàppe sa bopp rek moom nga jàppe ñi ci des ni nga jàppe sa bopp moom nga jàppe ñi ci des te loolu poñ la boo xam ne ay jafe-jafe la yu baree bari la indi ci àdduna mooy bañ bennoo gi li ko indi mën nga ko wax ci baat waaye doo ko jëfe waaye yii moom Serigne Touba eh, gis nañ ne benn bu ci nekk indi na ci lu baree bari luy wane ne eh, buñ ko toppee danañ egg fi ñu jëm mooy eh, racisme boobu wala defe ne yow rek yaa gën ci wàllu diine wala defe ne yow rek yaa gën ci wàllu taifa wala yow rek yaa gën ci wàllu social yow rek yaa gën ci li ma bëggal sama bokk bopp daal e du ma ko bëggal ki ci des ba ci yenn masala yi sax yi ñuy wax mën naa dem ba lor ñu ci yooyu dégg nga e, du bañ naa la niñ koy waxee ci wolof sama bopp ma la gënal du bañ naa la waaye lislaam moom dafa ne rek bala ngaa nekk jullit li nga bëggal sa bopp da nga koy bëggal ñi ci des kon loolu ci tënk boo koy xool ay jéego yu am solo yoo xam ne sëriñ bi indi na ko ci ay tontu ngir uh, jullit ñi nekk benn indi na ko ci wàllum dimbulante ci sunu biir indi na ko ci wàllu xidma ndax xidma it boo koy xool moom rendre service la boo xam ne mën nga koo defal uh, sa moroomu nit sa moroomu mbindeef te doo ci sàkku mukk sax mu ne la jërëjëf waaye da nga koy def rek ngir jëmmi yàlla loolu tam concept la boo xam ne sëriñ bi saxal na ko fi ba mbooleem uh, taalibe yi tax ñu bari bu ñuy yëngu soo leen euh, gisee euh, naka xidma yi la ñuy wax ak yu mel noonu nga xam ne loolu tam euh, bokk na ci yi nga xam ne fajtal la war nañ war naa leer ci bopp nit ñi ñu xam ne mën naa indi ak bennoo ah, mën naa indi ak bennoo bu ko defee kon mbokk yi ñu xam ne daal jubluwaayu waxtaan wi ndax jamono ni mel kenn ku nekk day xëccoo jëm fenn rek waaye sëñ bi moom ni nga ko gisee mu koy yare njaboot gi day bëgg ñu tënku xam liñ nekk lu mu doon ñu xam ne ci biir lislaam lañu nekk biir lislaam jëm nekk tam sëriñ tuubaa da cee bay waar wu yaatoo yaatu kenn ku ci nekk nam fam fa mu nekk di fa bay e, toolam ci biir lislaam ma nga fa di fa di fa bay waaye ñun e, booy jàng ab téere te jeexagul danga ciy nekk rek doo ubbi beneen kon ñu ngi ci téere boobu ak li ñu fi sëriñ bi bindal jox ñu ko ci ay tontu. lu bëree bari la kon nañ ci dellu te xam ne eh, maanaa bennoo daal eh, farata la te te te te munta ñàkk ah yi nga xam ne nag eh, moo xew ci jamono nga xam ne nit ñu bari ñàkk ràññee xëy na moo tax ñuy am yenn position yi di ko défendre ba koo défendre ba tax ñu xeeb fi keneen loolu lépp lislaam nanguwu ko da ko da koy bañ ah, loolu nag lañ ci bëggoon a indi ndax waxtu bi xat na te ñi ngi xaar ndax sëñ Abdoulaat tam da koy xëy na am lu mu ci dolli eh, muy poñ boobu rek benn jullit ñi daal mu nekk yóbbal ci màggal gi jërë ngeen jëf wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yi ñu ngi leen di nuyu leen siyaara Euh, di rafetlu bu baax waxtaan wi ci sëriñ Basiru ni mu ko jàllale am na solo lool mel na liñ ci doon séntu ak liñ ci yaakaaroon lépp daje na ci tënku na waaye doy na sëkk ab bind doy na sëkk itam loo xam ne mën see jàpp ngir euh, nafaraat ko taxaw ci ngir war ko yóbbuloo itam ndax bis yu màgge nii bis yi nga xam ne bi bisi sant yàlla la daf cee bokk itam ñuy nafaraale leen ci njàngaleem sëñ bi ndax mënta ñàkk loolu dafa bokk ci li ñuy amal suñu li ñuy jariñ suñu dund li ñuy jariñ itam bu ëllëgee te moo tax ñu mën a xam fan la ñuy teg suñu tànk mooy ne tam bi bu doon waxtaane tam bu ama am solo muy bennoog jullit ñi dañu ko waxa ca taam rek day loo xam ne mënta ñàkk bennoo ndigalul yàlla suñu borom la moom moo ko santaane indi na li li ci am solo lépp ci ni ko sëriñ bi jàngalee wax ci ay wàll yu bari wàllu euh, sëñ bi ni mu doon xeexee wàllu parparloo boddukonteeg xeebanteeg yu mel noonu yëpp ak yëm ca bind waaye bi ñu ko seetloo dëgg dëgg rek day sëñ bi moom dafa jëmmal ci am njàngaleem ak ab yaram ay mbir yoo xam ne mees naa wax ne mooy cëslaay yi nga xam ne bu xasee taxaw rek benn lay daal di yomb yooyu da ko dugal ci biirum njàngaleem eh, yar ci mag ñi tasaare ko bu baax a baax ndax moom yeesalkat la woon yooyu man sa siyaatu rek mel ne jéggale muy al bu fekkee mi ngi am mees naa séentu ne benn doo mën naa am waaye bu kuy def buñ la tooñee rek doo baale faaw da ngay fayu foofa ak jàppante rek moo fi mën a am aku bañante beneen ba ci topp mooy lu mel ne ak tasaa xam ne wàllu tolérance tolérance mooy nga xajoo sa sa mbokk meneen wala keneen koo xam ne bokk leen madhab bokku leen am ngir wala bokk leen xeet wala bokku leen tariqa ak ku mën doon rek wala bokku leen dëkk sax nga mën koo xajoo ndax rek sa mbokkum jullit la nga def ko ne sa bopp mën a dund ak moom xam ne leen wuutale moom du la am solo ndax wuute moom mënta ñàkk yàlla moo bind noonu doomu aadama yi moo bind noonu nit ñi faaw ñuy wuute seen biir ndax ni mu ko waxee rek wa li daalika xalaqahum kon wuute bi mënta ñàkk waaye nag dafa bëgg ci wuute googu ñu wuute ñu xajonte suñu biir kenn ku nekk jàpp ne sa moroom yaa moom yéen a séq dund gi am leen yàlla boole ngeen war ko rafetal loolu suñu dacee jàngale ay bind yu am am solo muy wàllu tolérance googu yi am lu mu jàngale ci wàllu yërmande muy yërëm mboolem xeet xeet yëpp rek yërëm mboolem mbindeef yëpp jàngale ci jàngale yu am solo waaye képp koo xam ne sa moroom jullit la itam nga bëgg ko muy mahabba bi nga xam ne dafa war a am ci diggante nit ñi am na lu mu ca jàngale moom itam lu yaatoo yaatu nga xam ne kenn ku ne da koy jël def ko ne sa bopp bëggal ko li nga bëggal sa bopp wa aqina bi hubbi kulli muslimi wa najjina min sharri kulli mujrimi ay ñaanam sax booy xool yu bare bare ci ñaan yu mel noonu nga xam ne it moom boo xasee bëgg li nga bëgg li bëggal sa bopp foofu bennoo mënees na ko faa séentu kon yëpp ay ay ay ay mbir la yoo xam ne benn ba bu ñu doon xool rek lam ci jàngale lu yaatu yaatu la waaye yooyu fu mu fu mu daje rek melokaan yooyu fu mu daje rek bu fekkee dund nañ bu baax a baax ñi ngi xajante suñu biir ñu ngi yërëmante ñu ngi bëggante ñu ngi jé jéggalante tey jéllalante foofu benn mën naa mees na ko seen mën naa am ndax mel na yooyu mooy yu koy suuxat mooy yu koy jëmbat te yooyu rek mooy sëñ bi doon jàngale joxe ci misaal moom ci jëmmam nga xam ne moom moo ko njëkk dund comme ni ko sëñ Bassirou waxee ci ay texte yu bare bari yu mu indi ndax sëñ bi ci misaal rek ak li ko fi mu jaar fépp fi ko noonu jaarale ak li mu dund ci ay mettit ak ay nattu teewut moom dafa jéggale dafa leen a baal wax afawtu anil a'daai turran li waj si man nafaahum li xayri sabran lastu adfaxu waxat afawtu anil a'daai turran eh, li wajhillaahi ma safi kalkali moom dafa jéggale baale ba noppi wax ne xolam sax dara nekku ci dafa sell kon kooku moom mooy suñu royuwaay yaakaar naa li mu indi ci njàngale bu ñu ko toppee liñ bëgg ci thème bu mel nii ak waxtaan bu mel nii day mën a sotti te mooy benn ak jullit ñi nga xam ne moo loolu euh, ndigalul yàlla suñu borom la kon daal day mel ni sëñ Bassirou li mu ci indi lépp lu am am solo la loo xam ne wax na li ci mat a wax lépp xanaa naa ñun li ci suñu warugar rek mooy jëfe ko ak yóbbu ko yóbbuloo ko bàyyi ci xel xam ne jëfe ko rek mooy li ñu ci jariñ mooy li ci am njariñ ndax xam ak jëfe loolu yàlla santaane sëriñ bi tam loolu mooy li mu digle al ilmu wal amal al ilmu naafi ak al amalu saalih da xam ba noppi jafe waaye warut nekk lu ñuy wax nii rek boo liggéey ñu ñëwaat waxaat beneen thème wala ñu jëlaat beneen tomb waxaat ca toppe ko noonu te du am benn ceexet ci suñu jikko wala suñu doxalin ñuy dellu baax baax di leen siyaar di leen jéggulu ndax waxtu xat bi euh, ak jamono bi ni mu tëdde dellu di siyaare bi di ko ñaanal yàlla Cheikh Mahamadou Mourtada yàlla sàmm ko te dolli ko wér ak kàttan ba li nga xam ne yal na ko bëgg koo liggéeyal sëriñ bi lépp mu àggale ko ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu foofu rek di ko xam ne euh, sëriñ bi moom moo ñu digaloon ne thème bii nañ ci waxtaan waaye jubluwaay bi it bokk na ci soññ mbokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne moom mooy seen jëwriñ ñu gën a dund bennoo gi ci seen biir gën a bennale xol yi ni ñu benn ni ñu bennoo ci pas-pas yi ñu bennale xol yi ak yéene yi te yaakaar naa loolu waxtu nekk mi ngi ciy soññee ñu bañ a bokk rek ci ñi nga xam ne dañuy boole suñu jëmm waaye suñuy xol du ànd ndax bay sawu tànk li ñuy wax ni mbokki taalibe yi buñ ko déggee te topp ko mooy lépp lu waaye jàppaloon sa moroom ci naka sudul noonu da nga ko war a dindi nga xam ne ñi nga jàppe sa bopp noonu nga war a jàppe sa moroom te xam ne li leen li ñu boole moo ëpp doole fuuf li ñuy teqale sëriñ bi nag dafa bëgg moom ñi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam def ko jëwriñ waxtu wu nekk bu ndaje yu amel nii amee mu jël tomb boo xam ne dana ci wax ak mbokki taalibe yi lim leen bëgg a wax mooy daal nee na mi ngi soññ mbokki taalibe yépp ñu bennale seen i xol bonnale seen i yéene te jullit bu ñu gisit ñu def ko ni ñu def sa seen bopp loolu buñ ko defee rek yaakaar na ne jullit ñëpp buñ benn woon kon tey àdduna ci loxo jullit ñi lay nekk waaye àdduna bu ñu gisee jullit ñi daanaka ñëpp raw leen te boo boolee jullit yi àdduna yëpp mat nañ milliard ak genn wàll ci ay jullit waaye nag bu ñu gisee tey ñu ay jullit daanaka euh, fi àdduna toll tey lépp seen loxo la nekk loolu ñàkk a benn jullit ñi moo ko waral ndax alalu àdduna bépp mu ngi seen loxo waaye nag daanaka jariñoo ko ay jàmbur rek ñoo koy jariñoo loolu nag du ngeen am kàttan te li ngeen di wut du ngeen ko am kon nag loolu la sëriñ bi waxoon ne daal sëriñ Touba moom nekk fi woon di tàqale ci benn la la nekkoon waaye rawatina rek bu ñu xoolee mag ñi sëriñ Touba yar taalibe yu mag yi toppoon sëriñ Touba ñooña ku ci mas a gis sa moroom dangay dangay mel ni ku gis sa kilifa maanaam ñoom dara doxul woon seen diggante ñoom ñëpp dañoo bennoo woon ku ci nekk la nga yéene woon sa bopp lu ko ëpp nga yéene woon sa moroom loolee nag moo war a wéy war a wéy war a wéy ci mbokki jullit yëpp ci mbokki taalibe yëpp ku ci nekk daal boo xam ne ngëneel danga koy gis sa moroom waaye doo ko gis sa bopp bu boobaa jafe-jafe yu baree bari dana dañ ci àdduna loolu sëriñ bi kon moo ñu joxoon ndigal thème bii moo ko tànn ne nañ ci waxtaan ak mbokki taalibe yi soññu leen ngir ñu mën a bennoo ci lépp ci pas-pas yi ak ci yéene yi ku ci nekk daal yéene sa bopp sa moroom li nga yéene sa sa sa bopp foofu la ñuy wàccee kàddu gi di ñaan nag sunu borom tabaaraka wa taala màggal gii képp ku fi àndaale aajo yàlla ko yàlla na ko yàlla faj ci daraje sëriñ Touba ñu ngi ñaan ku fi indi jàngoro yàlla na ko yàlla faj lépp luñ fi def yàlla na ko yàlla nangu te yàlla mooy ñu fekke ko ay déwén yu baree bari te sunu kilifa gu tedd gi it di Serigne yàlla yàggal ko sunu kanam ñu yàgg ca ginnaawam yàgg ko liggéeyal barke Serigne Saliou jërë ngeen jëf